ah ay ay kii kii la ko def àqu yooyu loolu Sénégal la fi lañ koy lekkee bàyyi li muy joxe adduna bi yëpp a koy jox adduna bi yëpp a ñëw xanaa ay na bar xaamu wa ak ta fada fi na ñëpp sikar na ñëpp sikar li muy wax wa ay na bar xaamu أين برهان متى فنوا في إبتي وأين برهان متى فنوا في أمي وأمو والله لولا أنني أمنت بشيخ أحمد أنا أمنت لا لا لا di ngeen si ñëw man ma fay woo waaye maa ngi def sëriñ bi si si xanaa xamoon nit ñi xamul ne man sama mbokk mooy daal laa ilaaha illallaah yëpp dañuy jéem. ñi ko mu jéem. Ah, waaw moo tax il faut ñu bàyyi defaat tuuti seetlu rek ngeen xool Cheikh Ibrahima Niass si boppam ci temps gàtt moo gën a riche CV moo gën a riche bi mu di yàlla yi dem ba am ay quatre-vingts bi mu amee fanweeri at la taxaw ne man maay Muhammadu Rasulullah waxul ne man maay Xaadimu Rasul waxul ne man maay nangam waxul ma naa nangam bàyyi daf ne man maay yonent bi man man waxuma ne man maay serviteur yonent bi waaye daf ne man maay yonent bi man loolu la bàyyi wax képp koo xamante ne amaloo ko am na lu leeru ci yow ci yonent te bàyyi gars yi ba léegi yonent bi leeru leen gars yi ba léegi gars yi ba léegi yéen si yàlla bi ci kon maak doon gerte ak yooyu doom yi diw ak diw ci moom la ñeem li ñuy wax yëpp ci kooku la ñeem ñoom yi ba léegi wilaayatu cax ci boppam xamuñu ko wilaayatu dañ koy dégg rek. te yàlla nee na ni ma nëbbee sama jëmm ji laa nëbbee wala yu bi moo tax ay wala yu bëreetuñ fi ay wëyoo fi bëri wuyu lam ji la ñu dindi xam nga bàyyi bu ne dama leen a rékki sax lam ji la dindi bàyyi wuyu moo tax seen jëf wuyu la gën a nuru ko wala <laughs> moo tax nag kon il faut ngeen ngeen yii mu xewee man benn kalima rek laay fàttaliku yii bu xewee benn kalima rek mooy ñëw ci man ma baqa bi hamdulillahi min ahli asrina ilmun nastafiru minhu innama nanduru fi kalami gayrina li na'lama ma manna allahu alayhim dunahum fawqa maqamihim loolu xam nga kan laa moo koy wax ci 91 la ko sëriñ bi wax direct nii rek ma mokkal ko ci saas fekk dañ doon football de ci terrain ñu ñëw fekk ko muy waxtaan di wax moom ci boppam ci jamono boobu lan mooy xaatiru taalibe bàyyi ci monde ñi jëriñu ci bàyyi mu ne taalibe saagin yi nii la ko sëriñ bi waxee bi jamono Cheikh Tidiane di dund Cheikh Tidiane nee na mën ku mu jamonoon teel ku mu jamonoon teewul Cheikh Tidiane ko mën te waxuma taalibe te lu nekk ci Cheikh Tidiane def na ko ci taalibe loolu taalibe bàyyi du ko yorante ñun duñu ay taalibe escrit ñun fu bàyyi waxee ñu nga ku dul Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane la mën bi muy dund ak muy dundul te ba tey est-ce que dund ak dund ak ñàkk dund soxla Cheikh Tidiane wax ne adduna adduna ba mu daj bu fekkee ne oto la volant bi sama loxo la ne ñu ne ko Cheikh Tidiane kan mu ne ba yàlla di yàlla ba pëncam yàlla man maay diriger adduna maa koy doxal ñi fi jaar bëri nañ te kenn tontuwul Cheikh Tidiane ci loolu te barke baa ngi ci sëriñ bi mu ne ma bu ma toogee dégg kuy oote ci dara mu ne waxu Cheikhu Tidiane waxu imaamu euh, euh, taalibe Saajili yooyu moo may fàttali jamono boobu taalibe Saajili yu imaamu Saajili taalibe bi ñëpp xam nañ imaamu Saajili dafa bëri woon wilaaya taxaw taalibe mi dañoo bëri woon xam-xam bëri ay tasaruf mën dara daal ba pare di sénéteur comme li ngeen fi gis léegi rek bandi bandi li ngeen di dégg ci télé yi dégg jamono boobu Cheikh Tidiane leen mën xam nga taxaw mu noppi da leen gënoon a yar taalibe Cheikh Tidiane yi leen mën fukki junne yoon xam nga tax yëngatuwul dañ leen gënoon a yaru te wilaayatu ci yar nga koy xàmmee ci yaru xam ne nag dégg ngeen fi leen waxee xamadi ak insolent réew kon bokk ci wilaay te man nag loolu laa gis léegi li ma gis léegi léegi léegi ci ne si ne diw sëriñ la mooy maa la gën a koo maa la gën a ñeme yàlla maa la gën a wax lu non non wilaaya tu mënta ànd ak loolu wilaaya ci yar lañ koy xam waxtu woowu nag la imam Saazili ak taalibeem yi dégg nga di tàkk ci xam-xam di wane ay tasarufaat ci lépp ci af ci ufuq yëpp ci lépp xam-xam bi di tuuru ñuy jommal fekk Cheikh Tidiane leen mën te ci wilaaya tom la ñuy defee loolu ñoom waaye taalibeem yi toog ba bés rek ñu tontu benn mbokk taalibe ne maa baqaa bi alhamdulillahi min ahli asira ñun de ñu ngi leen di wax ne ñun desewu ci kaw suuf suñu ñoom jamono ñuy wax ak ñi ñuy jëf ñu jëlee ci ñoom xam-xam bu ñuy dollee ko wala bu ñuy fàttali bu ñuy puusaat jëm ci yàlla ahan kay ñu ngi déglu ñu ahan kay ñu ngi seetaan ñëpp ahan kay ñu ngi liir ñëpp lan lañ ciy jëlee pour xool li ñu yàlla may li mu em wëli si ñoom li ñu am di bal loolu la taalibe Baay yi di wax tey te billaahi taalibe Baay yëpp yëpp yëpp yi ma xam ñi mos Alaaji Ibrahima Ñas si boppam te ma xam leen ñi ci wax ak ci nopp xaal bi lañ am deseetuñ kenn ku ñuy déglu ñun ci kaw bi ngay wax ci xam-xam baa ngay wax ci sëriñ bi ngay wax ci sëriñ ba pare man damaa yëg ne maa ko xam daf maa gën a siiw rek daf maa rek moo tax gars yi ay wudu wudu yu dul jeex la ñuy sampo buñ sampo wudu wudu siiw loolu nga yaakaar wilaaya bu fekk wudu ay ay di wudu wudu am na ñoo xam ne sax ay sitaire de wudu wudu la ñuy teg ci kaw waaye billaahi lu ñuy siiw siiw ci biir néeg wax la lu waxul ak yow ci mbedd mi loolu bàyyi rek a koy bàyyi leen xel li ma leen di wax gis ngeen sëriñ si ngeen di dégg ñuy wax ci télé gis nga nii ñu noppee nii ñàkk a xam dara moo tax ñu noppi. dëgg xam dara moo tax ñu noppi de. kii wax ci biti ba ngeen dégg ko. lan wax loolu la xam jeex na bu duggee ci ne am leneen lu mu lay wax. waaye Cheikh Ibrahima Niass rek day biti nga ne ce que mu dugg ci biir ce que Serigne dafay am néegu biir ak néegu biti gis nga gars wax ci biti liñ jot am lañ am koo ci fekk ci néeg amul lu lay wax. sëriñ bi tëju na ay vidéo lay seetaan duñu sax jaamu ko ci yàlla parce que xam na ne ay innocent lañ la àndal te Cheikh Omar Fouti waxoon na ne bàyyi leen xel si ñi ngeen di jox seen bopp loolu la Cheikh Omar wax balaa ngeen di jox kenn seen bopp Cheikh Omar Fouti na ngeen vérifié ba li ngeen soxla xam ngeen li ngeen soxla ba xool ne am na ko ba am na ndigal li jox leen ko ngeen doog ko séq ak moom soo leen ko toppee ndax moo doon sëriñ seen sëriñu bàyyi baa moom mooy nangam kóllëre gi nàngam Cheikh Omar Fouti nee na di nga sant mu ne yow mi jéem nag ne téere yi doy na la wala mbooloo ma yema doy nee na loolu doyut si yàlla te boo ko doxee pour ut yàlla yaa ngi jéem lu impossible lu mu te nekk moo tax dama leen di wax ne dawaluma leen sax parce que dara xewul gaa yi bëri wuñu bëri wuñu bëri wuñu bëri wuñu amuñ xaalis gaa yi amuñu yàlla amuñu yàlla amuñu yàlla amul xaalis moo tax ba ma fi waxee li may wax ku ma oo sëñ eh, ba sëñ bi ma dama déedéet tontu ma internet baa nga dem télé baa nga woo ma télé man du ma wax ci téléphone ay fenkat lañ koo ci waxal ci téléphone mu génn wax leen moo tax góorgóorlu leen Cheikh Ibrahima Niass 30 ans la am ne maa yonantu bi ba bi ngay génn àdduna seen bàyyi seen sëriñ seen baayu sëriñ ñu ngi fi di jamono teg baay bi ko baay di wax sëriñ boo fi yaakaar fii te mu jamono teg moom mu ngi jàkkaarloo baay di rajo moom Dakar ak fu nekk te waxoo ko baay loolu foo ko teg du tey lañ koy laaj Alaaji Ibrahima te bés bu ñu ko laajee tey tey tey juróom-ñaar fukki junney làmbi ñu Cheikh Ibrahima dana leen la bi muy am fanweeri at leen ne may Cheikhu Tidiane waxu la ne mu xadam Cheikh Tidiane waxu ko waxu la ne man maa xalifa Cheikh Tidiane waxu إلا بحمد الله باب خطب التجاني ولو كانت له ذرية ترابها wax ji leerul bàyyi ba tuuti wax la nit ñi déggul mu ne man man maay Cheikhu Tidiane maay buntam donte ay sëtam ay shérif ñu ngi ci kaw suuf di deretu Cheikhu Tidiane man maay buntu Cheikhu Tidiane leerul ñu dem ba ci yàgg fii Sénégal mu ne am na ñoo xamante ne ñoo wéy diirante ak mbagg mais ci ñoom secret danañ liggéey ba dee duñ gis résultat ñu ne ko bàyyi lu baax pour ma wan may ci yaakaar wa min ba'dihim naza'atul ba'd lam yaraw natijatan fi xaar ne ko bàyyi tax li koy yàq la bu mën a def Tijaan pour ñu xam ne Cheikh Tidiane bépp ci man la noo koy xamee loolu sori na ñaata nit nga fiy gis ñu am ndigal te ñaar bu ñu joxee laasim tey fii léegi dix ans ñu joxaat kenn laasim si nga xam ne <laughs> man nit wax dama ko ne ba ma amee sama ijaaza ba léegi ñaanal maay soxna seen laa jox ko ñu ngi maa ngi dugg sama juróomi at am na ñoo xamante dañuy jox registre ku ñu jox bind ñun mënuñu registre parce que ñi ñuy jox ñuy dem xamuñu ñu toog chaque jour bàyyi boo ñu xamee ñun taalibe a yi mu xadda baay xam nga dañoo taxaw ci bunt baay bàyyi woon a gars dañuy ñëw ne palpe la nga koor ñu la jàll palpe bi mooy ñëw gi ngeen di ñëw kër mu xam yi bàyyi pare nga palpe gars rek duñ ci dara dañuy topp sa xol bi ndax bàyyi rek a ci nekk rek ñu bàyyi la nga jàll bàyyi mooy jëflante alal moo tax maa am nañu waxoon na ko yaa oote yaay mujj li fa yaay mujj tegu suuf yaay feeñal góor ñi te yaay joxe àq moo tax il faut ngeen gëm loolu moo tax bu ma toogee gis fii ah te maa ngi leen di leen ñaan nag maa ngi leen ñaan nag maa ngi leen di ñaan maa ngi ngir yàlla lii dama koy ñaan ngir yàlla yéen sikarkat yi doo leen ay woykat maa ngi leen koy ñaan ngir yàlla gis naa ay sikarkat yuy woy keneen ku dul bàyyi billahi da ngeen ko lay baax da ngeen ko lay luur bu fekkee ne alal ngeen soxlaa oto xaar leen alal Ibrahima yow dëgg loo leen di woy doo leen ay géwél doo leen ay géwél damaa bëgg zakir yi zakir yi damaa xam ne damaa bëgg ngeen xam ne dog ngeen ci alaaji dafa am lu ñu leen monteel fa ngeen di jëlee nit ñi sax waxi waxtaankat bu fa jëlee nit loolu laa bëgg ngeen xam ku ci bëgg ñu décroché la ci xolu jaabi yàlla yi ne fi naan eh, di way leneen lu ba alaaji bàyyi sax ci boppam soxlawul ku ko way maa Abdou Niang xam lan la xoon kii xam lan la xoon euh, ma euh, kii euh, papaas maa ngi koy fàttaliku benn jour la ko wax Medina Baye mu ne bàyyi leen wëy yi wëy yi jeex na Ibou Diouf wëy na bàyyi ci azalam ak ci abadam ci zahiram ak ci baatinam ci awlam ak ci aaxiram mu ne fu Baye nekk Ibou Diouf fekk na ko fa wëy la jàngi leen wëyam yi te wëy ko jeex na amatu lu ñuy wëyati góorgóorlu leen ci lislaam kon de di ma mën a àndal Sidi Barama bay baan leen di wisit ndab lab ngeen ci Seydi Barama di ngeen di woote ndax maa ngi ñëw dëgguwul dëgguwul ndab lab ngeen ci Seydi Barama di ngeen di woote ndax dëggu naa dëgguwul man maa ko dëgguwul dëgguwul ci muqaddam ci Zakir yi faydu bi ñaar rek a ko yor ñaar rek ñoo mooy zakir yi ñoom ñoo yor faydu bi ñoom ñoo yor secret faydu bi zakir yi ñoo yor secret faydu bi ñoom ñoo yor secret faydu bi ñooy jëlee jaami yàlla yi fa gën a xóot fa gën a sori di leen indi waxtaankat yi dañ leen déranger rek ñu rek waaye zakir yi ñooy buubkat yi ñooy mbaatkat imagineel yow imagineel yow li ngay def ci xolu jaamam yàlla bi ñu dégg la ngay woy kudul bàyyi ñaata taalibe bàyyi ngay rékki ñaata taalibe bàyyi ngay oh. dañ naan ah kon kii ni mu doon woote bu dëgg nekk alhamdulillahi ma sant rabbana moom mi ma ma sant rabbana moom mi kañ ba ñëpp lii doy njànguma di seeti yax ca mool ya te wax di xar ca ca góor ña ku weddi lii na ñëw ñu dem ci béy ba ma daal di wax lam xamul ca mool ya kon jël bu suñu fi way ba dem jël xel bu juum way ba dem si ñooñu ñaar balaaw buur ko yóbbu ma jël suñu ay ba sa ba ay say

yéen de bu fekkee ne xamoo leen ñoo la man de bu may toog di seet seetaan sama télé ku mu ku a tudd ma barke billaahi wallaahi taala dara bu ma gisee sama su ma gisee gars yi damaa toog benn waa benn mu ne sama sëriñ nee na billahi lazi laa huwa sama sëriñ nee na musul moom mu ne ko bam ne musuma rek la gën a tuuti boobu la moo ëpp ñëpp ba bu ndaw la bu ndaw bi ko waxee di ko répété di ko réer ma toogaat keneen répété waat ko réer ma ne ay waay fi ñu bàyyi ko fi gaa yi nekk ak suuf léegi ñu dëggal loolu dafa des ñu dëggal kenn du baay. kenn du baay. bàyyi parce que damay jëflante ak yow ba ci at mu taxaw xaar. loolu la nga dëggal ne kenn ku bàyyi mu continué waat soo ko dëggalaatu bu yàgg xaar yi bàyyi di romb bu yàggee nga naan dañuy jaay xaal non ñi maa leen ci jiitu te da ngaa fay ku yàgg tey jii gaa yaa ngi dem de gaa yi bés bu nekk bàyyi leen defal message bu ñuy avancé mahabatu Cheikh Ibrahima Niass mooy. moo tax man loolu mënoo fee nekk ci pays bi di sikkaan ba ñëpp xam la ci alaaji Ibrahima Niass ngay dem di woy lu kenn xamul lan nga soxla ci woy kooku lan nga soxla ci woy kooku pour mu tëbb la pour am oto kër dix mille francs vingt mille francs jasneer douze mètres jasneer ah, ah la sa location loolu kese mu jeex zakir yi nañu góorgóorlu man de tuuti naa ci pays bi pour jox kenn ay directif waaye xam naa ne woy gi ngeen di woy ku dul Alaaji Ibrahima Niass taaliba bàyyi toog fi man neexuma murit yi am nañ fulla bu day ni seen sëriñ la ñuy woy seen sëriñ la waxtaan te da ngeen foog ne woykat yi zakir yi nekk ci faydu bi dañu yaakaar ne ñoo moom seen bopp da ngeen ne moom seen bopp moom moo leen seen bopp yéen yéen yéen yéen ñaata at kenn xamu leen alaaji Ibrahima Niass moo leen présenté kawlu bi bu leen koy xamee wala rajo xam leen wala leen xam leen bàyyi tax loolu du addul amaana ila ah delloo leen mbir bi ki ko moom ku fi am seen relation ku fi am seen relation yaa xam nga denc ko di nga denc wax ci ñun lii lan la showbiz bi nekk ci réew mi ñun dañ cee new faydu bi du showbiz showbiz métti maani la ak la ak siiw ñaar yooyu rek siiw ak alal rek mooy showbiz loolu amul fit lañu góorgóorlu lañu góorgóorlu te ki nga wax bu ma tontoo ma ma dem ci moom direct ñëpp dégg ñi koy def man ku ma ci tontu ma dem ci yow direct la ñi ko fi def yëpp xam ngeen ma ci tontu ma dem ak yow dégg lan la Dakar moytu leen ko réew bàkkaar te lan la ñu waxoon bàyyi wa maa saqani ilayhim ila ma indi ci yéen pour jox leen saadata daar hmm. nañu góorgóorlu képp koo xamante ne tey yaa ngi fi di bi Alaaji Ibrahima Niass bu yàgg loo dégg ci ay muqaddam xaw ma muqaddam lañ xaw ma lan lañ toog ci télé bi nañ dem nangam yi nañ dem màggal yow sa yoon ci màggal hmm. yow taalibay bàyyi la yow la ngay wax murid yi jëriñoo te nañ naa fekk nga parce que leen gëmul li muy dëgg nga bàyyi bàyyi ñes dem ci ñoom da ngay fen gëmoo la lu xew lu xew lan moo xew lu xew lan loolu nga fi am lu xew lu la bàyyi doon wax naan influence bi dana bëri dëkk bi dana yëngatu waaye sax na day sax tey da ngay gis ñu dëgg ñi yàggul ci yàlla yëpp heure bi nga koy gis لي قداني مداني moom rek a xeex xeex bi moom rek a caal nañ ko respecté nañ ko respecté delloo ko waaw dañ ko jox cër delloo ko li mu xeex ba goree ñu nañ ko dëgg moom rek a xeex xeex moom rek bàyyi ma xeex xeex ñu yokk lii ah bëri na ku ma jëlee ma yaakaaroon ne moom moo may dimbali ci lii xat jafaan yi ah! yéen a ngi wax ay de dégg mooy tey démb mooy tey de waaye mu ne groupe ba semaine bëri na ay jege ñaare yu ma jege lool lool ma yaakaar ne ñoo may dimbali ci li xat jafaan yi war nañ waaye ne xam na ay baax kon du dëgg kon buñ ko defal tuuti ne ñu ko wax te du dëgg yëpp danañ ko wax ba ñëpp xam ko baa ñu jot ko ba nit bu mosee alaaji ibrahima ñas mënatu la mos pour dàq loolu ci kaw faydu bi amul esprit dépassement lu mu laaj rek dañ ciy ñëw man man fi yëpp xam kan nañ ne man dem nañ fi kaso guerre nañ fi xeex nañ fi jàmm moo am tey bu koñ di bëggoon ñu delluwaat ci ay rek ci ay xaw ma esprit dépassement ci lu mu laaj rek moo ciy ma lu mu laaj rek ma dellu ci ay non léegi fay gi amul fay gi léegi amul alxaana daa im mais pas permanent fay gi amul démb amul ëllëg lépp tay rek la liggéeyee tay rek la nekk Cheikh Tidiane waxtu mu jot mu ngi taal Cheikh Ibrahima Niass ba su nekk mu ngi fay lu démb li jeex na lu suba ñëwagul tey la yàlla tàllal loxo teg leen ci nekk teg ba jamono bii la ko ñëpp ñu yërëm baayam gaañu amul kenn ku ko dimbali nijaay ju am dara sax amu ko moom alaaji Abdoulaye wéet ci combat ñëpp ne ko ah ah, ah maam alaaji Abdoulaye Niass de pareel na ay magam sampal na leen kër jox na leen ay ijaaza jàngal na leen kasa kasa kasa Ibrahima Ndaw rek a def ca préparé ko bàyyi fippu xaal bi fippu ne Hã? Hasbi أسلم أسلم أسلم daal Cheikh Tidiane boobu ñëpp a ko yoroon ne sëriñ bi Ibrahima Ndaw rek a des bàyyam pareegu ko ndeysaan parce que nit ñi ci zaahiram lañ doon gis wéeroogul ci kenn bàyyam pareel na magam yi te moo des Ibra Ibra xaal baa naan wa bi taaxa as bii ci Cheikh Tidiane bi sama xol lépp lu ci aju lu ma bëgg ak jëmm ji ci waxtu mu jot ñaar na yam léegi nag mu des nag def xool Cheikh Ibrahima Niass ci jamonoom ba muy génn àdduna ndax dimbale koo na ko dul alaji da Cheikh Tidiane bi ko ba ba muy génn àdduna yaakaar na ko loolu am rek ndax bàyyi day wax muy dëñ waaye bàyyi ma doy ren déwén bàyyi doy sax nga bàyyi ak kenn yow doo bàyyi te boo fëggee sa dund doo bàyyi tax waxoo ko ci jàkk as bi bii yonent bi doy na ma Cheikh Tidiane sama xol bi te wax ko wi mu ko yëg waxtu woowu injustice moo ko wax képp bàyyi bi wax ak ak yi si tegu Cheikh Ibrahima Niass dundul yéen dunduleen dundul woon ci jamono ci ñàkk taa jamono bii taalibe yi ci boppam du ñu am lu ñu lekk dañ doon toog ba reer jot bàyyi li mu togg bëriwut nettali nañu ko bu gan ñëwee gan gaa koy lekk moom mu simile ñu lekk taalibe yi sikkar ba àll bi tëj sëriñ bi ñaana leen dem sa teen ba naan tëj dem sa teen ba naan dox tëj boobu képp ku am daal Sénégal Cheikh Ibrahima Niass mooy sa noon muy ngay sëriñ muy ngay nitu politique wala ngay ngay borom alal wala ngay chef de quartier chef de koo mën a doon wala ngay sëriñ ak boo mën a am Alaaji Ibrahima Niass mooy sa noonu tey la neex la neex de parce que liñ foogoon amul moo tax maratan uxra taraw na ajaban taalibay bàyyi moomuñ ko ñi doon wax du moom du léegi xam nañ ne moom la kii la ñi doon wax moom du lii xam nañ ne tey ñii la moo tax si ñoom la nekk waaye xam ne ñun lan lañ am lan lañ moom ñun taalibe bàyyi wa ubrizu lil jiilil jadiidi yi ñu ne war a génn pour woon alam bi fan la ñuy teg seen tànk ñun la ñun la ñun la ñun la ñun la ñun rek ñun rek ñoo fi war a woon tey alam bi fan la ñuy teg seen tànk ñun la ñun la taalibe Baay fu mu nekk mbooloo mu nekk barab bu mu nekk ak fu mu doon fu muy évolué moom dafay MC bi moom moom sëñ bi mooy MC bi mooy di doon barka laay waxoo président bi ji nii jëndee bi sala tey ñun la ñun la fu ñu mën a nekk rek la bonne ci ñun lañ ko war a ndax wax na ko hal absarat aynaka ahla maishatan min al abdi fa huwa alhamdulillah loolu mooy la bonne vie loolu mooy la bonne vie moo tax bu leen bu leen bu leen tilim tilim bu leen jaay misère dara xew dara xewut li yàlla di wax naan ata amrullahi fala tastajibu yàlla la muy def am na Papa bu leen yàkkamti ñëpp di daw taalibay bàyyi bi ak a déggloo fan lan la lu xew lu xew dara xewut dara xewut dara ay tokaar la jawuk wilaaya to aaji daamu sakka ci naa ci ndobin ah, ci ndobin ci ndobin

da ngay ragal baay yëngoo ruuya doon kéemaan si li baax beneen way bi digal la di mu mel ni wutu la ñaar yëpp ma ci almaanaam si li baax sinu leer nga lañu

moo tax ñu ne Cheikh Ibrahima Niass daf ñoo war a doy te lépp loo xamante ni ñun wax nañ leen ne ci bàyyi bàyyi mel ko ci yéen a ci Cheikh Tidiane moom am na benn ndigal woo wala wu sax fii kulli ma yamuru bi ko doon woy loolu la nee na bi la ma leen wax lépp lu mu digal taalibe wala nit ci ci. bu leen ne bëgg leen Cheikh Tidiane moo la gën a bëgg Cheikh Tidiane te fi mu toog bàyyi premier jour mu dugg ci xabru Cheikh Tidiane moom moo ko wax dafa gëlëm dafa dafa dotal mënut mënut moo ko wax daf ne mu xam ne sukk xam lu muy wax bàyyi ko waxal boppam ne teg ndax bu gi gën bëggoon a dugg ci ci xabru bi toog ci xabru waaye man damaa dugg xabru Cheikh Tidiane yi toog mënumaa fexe ba Saalum Saalum dañ sama diggante jéem naa ko ba sonn ko toog sama mbir naan wax ko sama wax ko wax ko ma wax ko barke baay billaay billaay mënumaa fexe ba gën ci ma lépp loo xamante ne mu ngi ci faydu bi damaa bëgg ngeen xam saay saafara du sunguf du du dara du dara Cheikh la faydu bi kenn du ko bu dee ndox mu ñu teg wala ñam kenn du ci wis lu ko yàq bu dee bëri di teg kenn du ko téye loolu Cheikh Tidiane loolu Cheikh Ibrahima te ba mu koy wax la am fanweeri at ak benn la am kam doon waxal 81 ans la am xaw ma 91 ans kon xam ne jamono jii jaamu yàlla ñu woo koŋŋ koŋŋ koŋŋ leneen mhm. amul leneen loolu rek la ak bëgg Cheikh Tidiane boo xamante ne dafa ànd ak xam-xam du bëggee lu ngëmbeen wala gënal ci li nga bëgg ndax Cheikh Ibrahima su wax na ko fa mu fekk Cheikh Tidiane ci xadatul kut ci loolu xaqiqal muhammadiya muy mudiran li kaasaatil maarif waaye loolu noonu ci boppam nag amul benn doomi aadama boo xamante ne dox na ci diggante Mawlana Cheikh Ibrahima Baye tukki na ñëw ne Serigne Aliou Cissé est ce que xam nga ne amul fu ñuy dollee kooti ci kaw suuf tey mu ne Serigne Aliou est ce que xam nga ne amul fu ñuy dollee beneen bàyyi xel ci wax yooyu amul fu ñuy dollee kooti tey ci kaw suuf ما بقى بحمد لله من أهل عصرنا علم نستفيد منه إنما ننظر في كلام غيرنا لنعلم ما من الله عليه دونه فوق مقامه لدى الستار بباي مويلم خولن شيخ إبراهيم lépp lu ñuy dundee ci yàlla la sa gën a mat jaar la ci lépp lu ñuy toppee Cheikh Tidiane yi la sa gën a mat jaar la ci lépp lu nit di dundee dund nga gën a sell Cheikh Ibrahima Niass dund na ko ñun amuñu droit xool ci kenn kenn te billaahi képp ku fi way kudul bàyyi yaa ngi def loo xam boo toogee xam ne toog nga yàlla toog bu rëy ndax li ne ci yow kenn defoo ko ci yow ba pencam yàlla ba pencam yàlla si karkat yi ak waxkat yi nekk Dakar ñu ñu ñuy rey ñu ngi yi ñuy def du dara te duñ ci am dara nag duñ ci am dara dara duñ ko ci am te fay bi képp ku yaakaar ne yaa moom sa bopp sa siiw gi yàlla ñu jublu gën a di jublu yow la da nekk ci gétt gi te gétt gi nag fu ci taxawee ñu mbiibu bés boo génnee ci gétt gi weñ yi dinañ la topp benn 3 mètres nga sori ñu topp la benn 4 mètres nga sori waat weñ yi delluwaat ci gétt gi ne fi nga ñu fekkoon te li ñuy lekk nag ci gétt gi la moo tax góorgóorlu leen Cheikh Ibrahima Niass bëgg ko doy na tey war su Nigéria tey benn waay wax na ma ko barki démb mu ne ma engouement bi nit ñi am jëm ci ci bàyyi ma ne ko Nigéria ñoo gën a moom Sénégal Nigériens ñoo gën a muus Sénégal fi ñu toll ci njàng Sénégalais yi tolloo ko Sénégal Sénégal gis nga barkay barkay Serigne si ñoo yëkkati turu Sénégal ci mais boo xoolee Sénégal dix milliardaires yi si àdduna si Afrique sénégalais boobu bu yàggul deux semaines yi passé laa doog a seetaan internet ndekete armée Sénégal bi li ñuy rëy làmmiñ yëpp fukki armée yi gën a fort ci Afrique armée Sénégal ndekete bokku ci ñun ndekete ñun ci diine rek lañ raw <laughs> ba pare ñu bëgg a fantoo diine armée Sénégal man foogoon naa ne xam nga bés bu nekk ma toog non oh, non armée bu fort lañ am non surtout armée de l'air armée de terre non Sénégal fu ñu def ndekete dixième sax dugguñu dem na ngeen tapé internet ngeen laajte dix armée yi gën a fort ci Afrique Sénégal ba leen ngeen seetaan ay tel dix milliardaires yi nekk Afrique Sénégal bokk ko ci te bëree bëree alal mais du ñu tudd fukki mufti yi gën a dégg diine ji gën a bokkal hadis si adduna bi adduna bi laa ko Sénégal yi nekkul ci deuxième wala première wala troisième wala ku El Hadj Ibrahima Niass liya lay doon mu Ibrahima Saleh wala keneen ak keneen même bu fekkee ne diine fii ci biti. ñañu xam ci biti fukk yi ñuy jël wala juróom yi gën a dégg diine ci àdduna bi bu ci sénégalais bokkee bàyyi ñu sa ko yàq bàyyi ñu sa ko jàng ngeen bëgg a yàq bàyyi drapeau Sénégal fépp ko biir Sénégal si biti la samp drapeau Sénégal sampewul fii drapeau mu ci kii la drapeau moo tax ki bokk ci Cheikh Ibrahima Niass bés nekk baa ngeen di wax naan bëgg dëgg documenté bëgg dëgg documenté bëgg Cheikh Ibrahima bu wér dëggu ci Cheikh Ibrahima waaye documenté parce que Cheikh Ibrahima Niass dundam dafa riis dafa bëri lu mu def ci diine ji dafa bëri lu mu def ci islam suufi dafa bëri lu def ci tarkatu tijaniya dafa bëri lu mu def ci nite nite adduna bi rek baa dafa bëri lu ci def moo tax taaliba baa yi dugg ci internet bi sopp leen ngeen seen sëriñ kan la woon ci jëmmam jooju ci personnalité bi jarul dem ci internet nit li mu jëflante yow kenn ku nekk bu njëgën ay noppam mu ngi ci loxo jërëjëf yes góor góorgóorlu man dama ne woon du ma wax du ma du ma kii damay bàyyi gars yi waxtaan parce a waaye léegoo léeg dama naan su waxul naa fekk man li ma bëgg mooy nañ ko partage nañu partagé mbir yi mooy lan ñëpp nañu aju ci alaaji Ibrahima te ñu doy loolu ko fidèle ci moom kenn ku nekk fa nga nekk na nga liggéey baax bu liggéey kenn ku dul alaaji liggéeyal leen bàyyi relation yi ñuy am Dakar amoon ñu benn njëriñ mos naa ko wax sama benn xarit mu xaddam bu baax dañu toog di waxtaan ma gis ne nit ñaa ngi koy jublu nangam ñu toog waxtaan maag moom ma ne ko ah bootul Dakar ma ne ko nit dina jóge fële ne la yow rek laay déglu yow booy déglu boo génnee télé sama njaboot yëpp laay wax man yooyu yëpp jaar naa. jee man ni ma lay dégloo si te non si yow moom tax nga bàyyi yow laaj ci mën a composé mu ngi rox ci yow posonte mu ngi dugal ci yow sentiment boo xamante ne baa gis pire biir dootoo ko wax Cheikh Tidiane bu safee saf dootoo ko wax da nga koy dindi pour lan mu kontaan bu amee juróom na nga yàqu boo ci amee juróom Dakar yàqu moom dootoo ko dootoo dootoo dootoo liggéey ba moom da ngay fay Dakar moo mel noonu fii ku fi liggéeyal bàyyi yàlla jiwoo comme ñun jiwoo comme Alaaji Baraka ñaata at la fi nekk Alaaji Omar Kan ñaata at la fi nekk laaj leen ñi jiitu Dakar te fi nan ba génn te àddina ci xut baan itu sama sëriñ wax na ma ko benn jour mu ne ma dafa ziar si waa Alaaji Omar Kan onze heures pour ma joxe micro bi nee na ñu ñëw nuyu Alaaji Omar Kan rek mu ne waaw damay dama damay génn ñu dugg ci biir toog ñu sol war fa taxaw nee benn r bu bees tàq ñëw benn waay nekk ci dem ànd ak El Hadj Omar Kar ba presque deux heures moins El Hadj Omar Kar ñëw Medina noonu ci buntu kii bi mosquée Omarienne nee na mu ñëw rek ñu génn gàtt ñu sëriñ nuyu koo xam moom du dox ba dugg rek mu ne leen mu ne leen xanaa gisoo leen ci ma ànd woon

jël si ma ne ma sëriñ bi dalaa tëkku ci micro ci ziar bi ne bés bu diw tegul fii tànk te xam nga ku mës a tëkku nag dina la dóor ñu bari xam nañ yaakaar naa xam ngeen ku ma ko wax <laughs> nee na bàyyi déggul coow li mu génne la mu sukk ci suufam nett yi na mbokk mi ñibbi leen mu ne bàyyi ak tëkku gu rëy googu yëpp faale wu mu suma wax dara mu ne benn jour rek la ma leen diw ma ne ko waaw ne ko boo demee ba nekk ci digg boo xamante ne ñemee koo sa bopp rek su muy saa xam nga teg ñu ne loolu ma bàyyi doxal ci taxi moo moom yëf yi lu ko nekkee koy su la nee ne boo tiitee naa ne boisson sax boo naa ne boisson waaye loolu la mais ñu ñoo jël xaatim bi xaatim bële asrar bi asrar bi bàyyi moo doon jëmmi mbir mi lu mu la digal loolu la borom jàmm borom jamono lu mu la wax loolu la yàlla wax ci jamono góor gi moo ma ko wax mu ne ma bàyyi la ko wax ne ko boo tiitee nga nekk milieu boo xamante ne óolatoo sa bopp suñu sa bopp mu ne waajoo ji ñëpp xam nañ ko tëkku na ma sama bopp musul métti dee na ko yàgg te maa ngi ba ma ne leen tey ma dellu wax fi lu rëy hmm. wala ba yi xamul xamme min ka mooy ki fi raw ndax gileem rëyaay waru koo jay mu jóg di sóoru ju ñay loolu moo waral ñi fi ne kenn du baat ku jëm si si yow waaye nooru ñas laay way moo ne xaw su ne wala fagaay xamul xam ne min ka mooy ki fi raw ndax gileem rëyaay waru koo jay mu jóg di sóoru ju ñay loolu moo Cheikh Tidiane ñu ne ko xawsu boobu ngay wax kan la xam nga daf ne mooy xawsu diine ci tànk xawsu boo ko déggee Cheikh Tidiane da leen wax ne boobu bàyyi ko doon laaj mu ne yaani mu ne al maqaam al xawsi Cheikh Tidiane mu ne maanaam al xawsi maanaam maqaam al xawsu moo tax ma defar sama benn photo bàyyi def ci le messi déggoo leen foofu nga wax mooy leen Messi boo si baaxee sax xool leen Messi bu gars yi jàppale rek mu génne leen seetlu ko leen loolu c' est le patron le Messi gaw Cheikh Cheikh Tidiane nee na rajulun góor bu rajulun karim góor bu tedd lañ doon azimun maanaam ruugu fort lay am li tax ruugu màgg lay am azim dégg nga al azamatu ci ruux gi lay nekk al azamatu ci ruux gi lay nekk ndax ibnu qayyim al jawzi dafa wax إن الأرواح قوة وطاقة وقدرة حتى لا يتصورها البصر mu ne ruux yi dañoo am énergie am kattan ba nit mënul imaginer énergie googu kattan googu ndax ruuxu doomu aadama la nekk mu ne dem na ba ci àgg ci wax yoo xamante ne tu athiru fii jaysin kaamil looloo tax mu ne ruugu ruug rajulun azimun ruugu màgg lay am maanaam maanaam ruug gi mën na azur ci contaison la maanaam tey suñu ñu gëm bàyyi sama sëriñ def ma ko ma sax benn suuf mu ne xanaa xamoo ne sa njub gii nga jub mu ne sa sëriñ a tax yenn saa yi sa jur baax yokk ci yow nga ñàkk nga gis sa bopp yi mu jafe mu yomb ci yow fekk dafa am benn roxo Allah téye sa roxo di ko bañ loolu mooy ruu alaji suma roxo gi ci boppam boo ko téye suñu baaxee moom la suñu li yombee ci ñun moom la su dégg di neexee moom la suñu suuplee ci bëgg yàlla moom la billahi billahi moom la jaamab yàlla yi di soxla dégg nga suñu su suñu jaaxlee seen mbir seen digganteeg seen borom ak seen digganteeg seen bokk maanaam seen jam mu ne te niñ koy xàmmee Cheikh Tidiane yi ne wax woo mustajaab du'a ku ñuy nangu ñaan kon suñu delloo ñaan Cheikh tax bés bu nekk da ngeen bàyyi xel ci Alaaji Ibrahima Niass man wax dafa neex waaye dégg kàddu bu wax ji bu leeree El Hadj Ibrahima Niass la waaye bu dégg gi amee mooy captewaat nopp di ci dégg moom la fa inni kullu min indi masin yarir fa tayba fa tayba yan ruya fa tayba alhamdulillahi wa sant baay Seydina Niass moom mi babal xewal si ñoom ba dàgg raw si ngeen yaa fa tayba yëpp booloo dina ni leer bi day baax. alhamdulilah. sama papa dafa yóbbu leen baay fekk ma ci su école maa suñu école ay neuf heures ñu doog a ñu ne ma am na benn sama benn xarit ñëw na am na benn paa bu lay laaj te man ko paa man fii mu benn paa bu xees mu ngi toog na ci jardin xam nga école dafa bu yàqu ma ne ah ma génn rek ma gis ko muy sama paa ma ñëw toog ci moom ma ñëw nuyu ko rek mu yëkkati dix mille francs ay quatre vingt boobu tarbiya bu ma ay quatre vingt treize la dégg mu nuyu ko rek mu ne waaw dama fi ñëwoon rek pour seet si damay ñibbiwaat léegi euh, kii euh, Dakar ñu dox tuuti mu ne xam nga tax ma indi lef naa la fayal Dakar nga jàng mën naa la bu dee jàng arab rek mën nga bañ a ñëw parce que arab bi fépp mën naa la jàng doo tumara ko fi mu ne leer gi leer gi boobu ko ñaari mu ne leer gi fexeel ba leer gi ah, après naa doo ko comprendre li fiction bi wax naa laa mu ne leer gi barhama yaay ki amele tas kumba yaay ki sellale ya yëpp boolo dina ni leer ba tey ba alhamdulillah na sant ba ise ba ba ba lépp a booloo dinaa ni déer ba tey ba li fi sonn di wax naan bu subaa day toog ñun ñii ñëpp après day nit ñi ñëpp après ngeen comprendre lan la tey bu nit ñi di wax naan sëriñ amul ci Sénégal barke Baye Niass amul benn taalibe Baye bu yor tarixa yi ñu dëkk amul am sax si yow wilaayatu nangam loolu yàlla yi dem nañ loolu amul benn taalibe Baye bu sëriñ moo loolu du njàngay tax nga xam ko ànd ak ki a moo tax nga xam ko moo tax tey suñu jotaay bii tey bu ñu yaakaar ne du sax luñ programme du tax luñ programme programme ñu fi ñëw ñëpp asardisbale ñi ko programme nañ ba demb nii nii nii nii waaye nag ruuxu Alaaji Ibrahima Ñas bi moo ne déedéet sama taalibe du nelaw kat yes lii ba yëg foog ngeen ñëw ko moom kenn a nelaw mooy roxam boobu nga xamante mooy aspiré suñu rox ñu téye mooy roxam googu nga xamante ne lu taalibe bi la bëri bëri bëri ci adduna bi nokkeem gi lay téye seen xaal bu bëggee ñun ñëpp dañuy ah! su bañee ñun ñëpp dañuy bañ bu nangu ñun ñëpp dañuy nangu bu muccee ñun ñëpp mooy mucc loolu Cheikh Tidiane da wax ba nga xam ne sa njub gi ci boppam départul ci yow ci sa sëriñ la nekk ma da te ñu bee salaat suñ diggante Mawlana Cheikh Ibrahim Niass bàyyi loo manqué ci sa dund rek boo amee El Hadj Ibrahima Niass boo manqué am vitt boobu moo compte jeex jeex ñu ngi beesalaat suñu diggante Mawlana Cheikh Ibrahima Niass beesal bi du ci ay wax képp ku bëggul Cheikh Tidiane bàyyi njëriñ amul njëriñ xaritoo moom amul njëriñ ndax Cheikh Tidiane moo wax ne al waxtu waxtu waxtu sama waxtu la maa ko moom jamono maa ko moom adduna bi yàlla ba yàlla ba yomal maa koy doxal mu ne kon man xabbanii képp ku ma bañ ku ma bëgg fële njëkk nit man sabbani na ma moytu ñu may sab bés bu nekk nit ñi di a Cheikh Tidiane ci télé rajo ngeen bëgg a xaritoo moom pour la. lu leen di yokk la la leen mën a jëriñ lan la am lu leen bàyyi Cheikh Tidiane lu leen apporté seen te Cheikh Tidiane nee na képp ku ma bañ na ngeen ko bañ na ngeen ko moytu Cheikh dem na ba ne xam nga bàyyi def na ne xeexloowu kenn dóorloowu ma kenn lu ngeen gis may xeex su may xeex rek jóg leen ngeen xeex bàyyi loolu la Cheikh na bu ñu ma tooñee boo amul addiya bu ñu ma tooñee xeexal jox ma addiya Cheikh Tidiane moom loolu la waaw Cheikh Tidiane nee na su fekkee addiya boo ma jox amoo suñ ma tooñee xeexal nga jox ma addiya bi bàyyi nag dafa naan la bu leen xeex bu leen dóor bu leen saaga te bu ñu leen dóoree bu ñu leen saaga muy leen Cheikh Tidiane nee na déedéet dóor leen ma toogee ngeen jox ma sax dóor di àddee mais loolu la affaire yi du ay diplomatie ñun Dakar lañ dëkk fii amul kenn ku fii duñu gën mbom baa ëpp ñu fit waa Dakar soxla wu ma leen man ci kenn lu dul nangam leen yóbbu la ci El Hadj Ibrahima soxla wu ci kenn ku ma ci lonk pour yóbbu la ci baax soxla ci kenn. koñ bi ba ma fiy wax xam nga lañ wax dafa foog ne moom nit ñi basa nga nii du fees yaakaar naa ñu bëri laa leen cee. liggéey bi dafa am lu mu laaj rek su fekkee nan la ngeen di liggéeyal bàyyi seen avenir yi gën a leen wala seen relation yi gën a leen ah ba tey bàyyi force wala dafa am ñuy gunge sëriñ bi am ñu ànd ak sëriñ bi ñuy gunge sëriñ bi nag fu ñu jëm sëriñ bi tàggoo ak ñoom waaye ñuy ànd ak sëriñ bi ñoom dañuy ànd ak leen da ngeen di ànd ak sëriñ bi a takkule lu mu laaj ñu def ko bu fekkee da ngeen doon bëggee sëriñ bi nag ah ku ci tekki ba gis ne moom aisé wu na boo neexee nga ne sëriñ bi bàyyi bàyyi ndax bàyyi gis daan na ko wax bi muy dund bàyyi nañ ko moo tax bi muy dund bàyyi gis am nañu ko bàyyi di dund xam nga bàyyi lu waxoon man képp ku ma jàpp bàyyi ma doyloo naa yàlla sax ma doon féete képp ku ma jàpp nag ànd ak man doyloo naa yàlla ci lépp loo ma yaakaar inchaallah ñu ma joxee ijaaza booy mu jox ma benn malet ne ma lii na ko denc di nga ko soxlaat si kanam laa doo ko comprendre bagage yi ma jox lépp benn jour mu oo ma ne ma doo lekk xaalis ci football ñun suñ koñ bii ku ne woon jour équipe nationale du ci génn wala jour ligue champion doo ko gëm fii bal mu ne ma doo lekk xaalis ci football dafa am leneen lu leen doyee tey laa doo ko comprendre ndekete dafa am ay ruuyu aju ci man. wallaahi yes. maa koy ko comprendre. dëgg la ndekete yoo bu ma jaamul woon gars yi ñu ne yéen ñi ñëpp kenn ku nekk dafa gàddu responsabilité. seen sikkar yi ngeen di sikkar boo leen xamul fi ngeen di yóbbu gars yi. boo leen xamul fi ngeen di jëlee gars di ngeen ko téye. lu ne ngeen di liggéey te xam nga barke baax laa ilaha illallah bi ngeen di yëkkati dafa am benn waay bu moo sa fekk fii ci atelier Samba Seck ñoo ah sëriñ bi dama bëgg nga may ma laa ilaha bu raxul dara di aaral bu raxul dara ma ne tekk di ko déglu ko ci yàgg laa ah, laa bos bi laa soxla bu raxul dara moom yaakaar naa dégg gu ma benn waay fekkaat ma nga benn journée ma. non man boo leen di tudd laay laay jox sama yaram day doon wala tudd Allah. Oh. te ki la xamalee woo. ah. kon waaye nag dañ ko préparé gàmm parce que gàmmu jotaay bi dafay am incha allah te képp ku yàlla may temps rek moom cinq heures ci ngoon jouru gàmmu chaque année dañ fay def waxtaan te ñun jotaay yi ñu ci gën a soxla mooy sikar wax dëgg yàlla man déglu sikar dama dàqal si kàddu gi yàgg te billaahi wallaahi tallaahi keroog keroog Pambaay bi may waxtaan moom bokk na ci li ma dégg bokk na ci li ma dénk wax ko deux fois ma ne xale yi dañuy sikar bi mu ne ma daayira bu sikar ko du daayira mu ne ngeen daje sikar te waxtaan mu ne na leen dajee mu ne faydu bi bu njëkk bàyyi buñ doon sikkar man nañu sikkar ba pare kenn waxtaan bu fekkee ne óoluwul ku war a wax yenn saa yi ñu dox fa teel a mu sotti li bi yëpp alxuraan ba léegi nag loolu buñ ko bañee dañuy bëgg di sikkar ka na sikkar sikkar ba xool yëpp ubbeeku ñu ñaan moom moo tax sikkar moom yàlla ñàkk a bañ a sikkar yàlla ñu suñ jotaay ñu ëpp si kàddu laay gën na bëgg mu gën a bëri li ñuy yëkkati kàddu du dara la dul wa amma bi ni'mati rabbika faqadis Cheikh Tidiane moo wax ne yàlla mooy tey jàmm bi boo ko jàmm li ñu ko dégg kon xam yàlla àgg ci yàlla looy comprendre taf lay nit ci nga ne ah, am nga fàq jeex na loo fa defaat naa ko tàngoor wee nekk sa yaram rek waaye loolu loolu du fàmm yuuxu yàq bërëngu ci kaw safara loolu yëpp du fàmm fàmm moom danaan la taf nga ne ah comprendre xippi xool ko naan ah, ah bëgg na loolu mooy wala saw ko ci kaw xam nga bu nekk rek yàlla dafa dogal rek Cheikh Tidiane nag képp ku jot yëf yi wajaba alayhim nag ko dañ cee war di wax loolu rek moo tax ñu ngi di wax ñu ne ko Cheikh Tidiane tax mooy li yéen fekk jël xëy na pour pour yow yow jëriñu ci dalika al-muraadul aham wal maqsuud lii ñu toog fii yëpp du dara lu dul wa amaa bi ni'mati rabbika li nga xam leer na la te wér waaye dañuy namante dañu bëgg a dajee sikkar xaal bi dem ci atmosphère bi ñu ko war ñu wax ki xamul yëpp ne am na lu des ki xam fàttaliku ki ci nekk békk loolu loolu ma sëriñ bi waxoon dama dama sikkar ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ziara kabir mu ci direct bi sant ma léegi mu ngi mu ngi ñu ñëpp ñu ñëpp ñu ngi seewaan ci jàmm di ñaanal zaakir yi ci boppam yàlla leen yàlla jox alal ci barke may wax ne amul dara loo xamante ne tey nekk ci pays bi war lii war lii ñun ñëpp ñoo bokk lii war muqaddas bi war taal lii war zakir bi war taal ñëpp benn kenn ku ci nekk mission Alaaji Ibrahima Niass nga porté bu ci xaar kenn te xam ne amul kenn ku la ci mën a fay nag ku ëpp Alaaji Ibrahima te lii yëpp ñu jaar ci coono lu mën a doon rek bàyyi jaar jaar bàyyi jaar na ci bañ a bëgg am bëgg a joxe dépense mu tëj bàyyi jaar na ci bëgg a tukki amul paas jaar na ci amul essence jaar na ci amul billet tukki na ba fa àgg amul billet bu mu def lépp bàyyi jaar lépp lépp ba nag bàyyi jaar kon lu tax ñu faw ñu jaar ñun ñëpp ñu bàyyi xel ci dégg taalibe yi ak suñu sëriñ si rawatina doomi Maolana Cheikh Ibrahima si nga xamante ne tokkit lañ ci suñu jëmm yi parce que kenn ku ne fëgg na dina ñu ne benn dëkk ñun ñëpp ñu xam ne benn président lañ am muy ñëpp ñu xam ne muqaddam yi Baye ñooy ñun ñëpp ay soldat kenn ku ci nekk man de muqaddam Baye bu ma seeti kilifa bu ma seeti li ma soxla ci waay nga waxtaanal ma ci baay ni ma ci mën a yéegee mënu ma kaa yéegee ci aar laa war na ko jabaru naa wallahi taala nga nettali ma bàyyi julli jumaan bàyyi mook senor bàyyi nangam li ma ciy yéeg mënu ma ciy yéeg sax bu ma doon yéeg ndax maalam Tijaani wax na ko nee na bu dem ba sàggan ci boppam ba yëgatul dara na dem di waxtaan na ko Alaaji Ibrahima si saa si mu yéeg fam ne ba yëg ne yéeg na fam ne loolu moo ko wax moo tax Cheikh Ibrahima Niass bokkul ak waxtaanee kenn ci kaw kontaan nañ trop ci jotaay bi bi leen maa koy wax dama jox kalima yi ñi nga ne préparé woon nañu ci kat ngi di wax ne lépp lu ñu wax ci mbedd mi liñ xam te di ko wax ci biir kër gi ñu wër lu te moo gën a leer wax ci biir kër gi duñ ko wax ci mbedd mi ba pencam yàlla kon bëgg naa taalibe bàyyi di def huit kilos ngeen dimbalante affaire yi di compétition mission la kenn ku nekk li mu xam na fexe parce que moromam boobu am na fu muy nekk foofa nekkul te ma fay arrêté waxta sol man loolu laa gën xamante ne fu taalibe bàyyi toog rek ñu suruxu seen biir pour uta xam dara képp leen bu mu dëgër bu ñu xam dara ndax Cheikh wax na ne képp kuy wax yàlla ci kanam ku ko xamul nee na danañ la danañ tëj sa buntu dooleeku te danañ la dàq xadara yàlla te la isaas nañu am méfiance si ku bokk suñu biir su weesoo nag ñun ñëpp kenn ku ci nekk ne yéene wala moom ci li bàyyi di seete ak lu mën a ko ñu bëggante suñu biir ñu respecté ñun de suñu xadara bii lépp alhamdulilah amul numéro deux amul numéro un képp ku gis ne war nañoo mën a toll ñëw képp ku gis ne gis na fi ci mbooloo bi loo xamante ne du nii wax la barke ko ci man jëm ci taal koo gis war leen ko jubati ci képp ku yoroon alalu baay alalu ñëpp nga yor ko yor alalu ñëpp ci waat ñu loolu la ñu gëm benn jamono tante war naa fi maa ngi koy wax gars yi bés bu nekk ne nañu ut benn kees boîte à lettres daaj ko ci xabar képp ku am lu ko naqari ci mbooloo wala ni may defee neexu ko wala ni sikarkat yi wala keneen wala ñu yor bureau bi neexu leen am na lu ñu def te neexu leen bindal nga dugal ko fa te bul bind sa tur bul bind sa adresse bindal rek sànni buñ ko xoolee bu fekkee maa war a tontu danaa tontu. su leerul ma leeral bu fekkee bureau bi ñu jóg tontu la àdduna ñu dégg pour rek tante ñun ñëpp kenn ku nekk muy yëpp li boppam ci loolu alhamdulilah kon nag yàlla ñu yàlla dimbali ba mbooloo bi nga xamante ne ci àdduna bi te bàyyi rek ka leen takkee yàlla bu kenn gis sa bopp yàlla bu kenn fàtte na bàyyi rek ka leen ci te lépp lu bàyyi def ci ñun yàlla ñu may sago ñu mën ko jëriñoo mën ko jëriñ jaam yàlla maa ngi wax ne àdduna bi tey ñëpp islaamu suufi lañ soxla te islaamu suufi xam yàlla moo ci te maarifatu billah boobu mooy li Mawlana Cheikh Ibrahima kon tey ñun fu ñu dugg ñoo fu ñu dugg rek waru ñoo mën a des ginnaaw waxtu wu jot rek war nañu bokk ci ñuy jiite war nañu bokk ci ñuy digale war nañu bokk ci ñuy jàpp ndax affaire bi nag damay wax bés bu nekk man arrangé wu ñu bëri man xam naa ndax ba may nekk Medina sax ba may nekk Medina Baye sax ba may tarbiya am na ay doomi baay yoo xamante ne lii ma magee bëri ñoo nekkoon loolu foofu okoor ak ay ay samay xarit bëri nekkoon Medina lañ ne moom sawaay du àll parce que gëmul léegi nag ñun Medina Baay ñi gënoon dëgër bo dàqa daw ña ko doon jege ñun kenn xamatul ci lu nekk waaye ñun ñi nga xam ñoo gënoon a dëgër bopp dàq daw jàng te ñoo ko moo tax bàyyi na booy naw sax ki a sori sama xarit yi ma nekkaloon ñi ay Ghanéen ñi ay Nigérien lañ ñi ay ay Camerounais lañ ñi ay Malien lañ te ma yaroon doon moom Medina Baye ñi ma ci xam ay ponkal lañ ay seen loolu mooy alal ji maa ngi leen di ñaanal yàlla yéen sàkkee yi alal rek laa leen di ñaanal bu dee xol bu baax am ngeen ko àgg ngeen ci yàlla bu dee dëkk ci yàlla wax lu mu def yéen ay fàttali leen yàlla te kuy fàttali leen di yàlla yàlla li leen di yàlla mooy alal ji yàlla jox leen te bàyyi dafa wax ne euh, euh, ku xolam asa baax dégg bu mu ragal alal bu mu ragal ñu ngi leen di ñaanal di wax ne gàmmu gi incha allah yéen ñëpp laay waxal ñun ñëpp nañ waaj gàmmu comme ni ko Cheikh Mouhamadou Aliou waxee baaba nañu waaj gàmmu bi moom lañu am lu ñuy lu ñuy fekkee rek wala la Cheikh di wax xadara bi ci boppam tàkkusaan boobu ñu doon def chaque gàmmu cinq heures bëgg nañ ñëpp fekk leen barab huit heures tas buñ paree Medina nag kun booy doxi sa soxla la jilsa boobu ñu doon def daal bëgg nañu ren moom ñu bañ ci passé dara yéen seen waxtaan yi commission scientifique ngeen préparé wax ko kenn ku ci nekk nag li nga bëgg a wax rek wax du ñu ne di waxal ci lii du ñu ne di waxal ci lii te bëgg nañ jotaay bi doon jotaay bu jaar yoon te am na ku ma wax tey rek TFM woo ma ne ma dafa bëgg ma waxtaan TFM benn une heure ñaar mu ne ma dafa am sa benn live bu ma déglu keroog loolu kenn du ko wax internet da ngay ñëw teel yaakaar sama live bi passé deux heures de temps mu doon wax ndaw ñi lan la ñuy ci Cheikh am nga une heure de temps téléphone yaa ngi yàlla a wax loo xamante ne dana mën a tegu ci xam-xam si aaroon naa mooy ko loolu dafa des jamono xam nga ñaanal na yàlla ñaanal tamit sunu jotaay yi nar a def ci sorti ñu wara def bala gam yépp ci xalé ak képp ku waxtu ala ibrahim gis nañ ko ñaanal mu am tanki ñi nga xamantene ñu ngi téye kurus te xa xamantene lu bari ñu ko téye téye bi yalla leen yalla moy ijaabu bu sax da ñu ngi waxta bi ne képp kuy muqaddam tan ñu lay ñaanal yalla yalla bo ci sa soxla yalla fekk ci sa ron jega la bay yalla na ko ci nit yal na ñaari bàyyi kanam ci ñun yal na ñaari bàyyi kanam ci ñun kontaan naa parce que lii yëpp yéen la soo leen gisoon affiche bi te ñëwoo leen mën naa ne si suñ ko xos la ñu toog ci kaw waaye bi ngeen ñëwee bàyyi dolli na leen génn ci biti si kar ngeen fi yëpp nit ñi yëpp boobu yàlla ko yàlla sax maa ngi leen di def sama bopp moom individuellement waaye maa ngi leen di wax nag may leen ba nga man lu ma wax saaga yi ñuy saaga ci télé bi ci internet bi garaaw ndax am na benn jigéen boo xamante ne topp na ci internet bi di xaal di ko wax yow jàmbaar sa sëriñ mu ko fu mu ko wax ma ne ko nangam moom a ñuy dem di dem ba yàgg ba ci ak moo ma ne fan mooy sa kër sax ko bii waaw dama fa bëggoon seet si la ko ñëwoon mu ñëw soog naa ko pare na taa kenn te ci saaga la commencé man boobu da boobu soxla na léew yi bu ñu jekkoo gaay dañu mel ni moom moom bi ñu ko gërësee c'est normal ki toog fenn yaakaar ne moom rek a fi nekk nga wax loo xamante ne dépassé na ko foog ko say mais bu leen saxee da di dal parce que yéen a a def bañ ko leen saaga bu leen bañ ko leen tiit rek dafa sentir menace moom ci boppam moo tax muy menacé te maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ma yàlla ci sama làmmiñ bii ma ciy wax Cheikh Ibrahima gis ngeen ni ma mel ci te kenn mësul dégg may imposé nit ñi baab baab boo oh, dee déedéet gisoo leen ma koy def ñun ñëpp nañ daje ci Alaaji Ibrahima ci la takkee nit ñi ci la amee lu ñu am nañ sëriñ ñu bëri sëriñ am nañ sëriñ ñu yaru amul benn doomi Cheikh Ibrahima boo fii gis mu ñuy gàcceel amul dara lu ñuy dégg Medina Baye bi ñuy gàcceel kon ñun lan la gis ñun takk suñu ndigg rek ranger suñu day loo Medina Baye te lu ñu xam dafa jot ñu njëkkante xidma Cheikh Ibrahima ñu xool taal bu ndaw Baye jox ñu kattan baax ñu toole jox ñu lépp ñu sant ko sant jamono bii la ñuy dañuy xuus si jaaxle Baye toog na ba jamono mu woo mag ñu ne leen nañu dugg xalwa laaj ndax ndax mission bi fii te bu taaroon kon ngeen foog ne ñun dinañ ci jaar foog nañ jaar ci jaar. yàlla yàlla may dëgër. nañu juboo suñu biir nañ joxante loxo nañu dimbalante nañu jëyoo man meluma fi nen adra bi fi nen lu tax yéen ngeen déplacé wu ñëw bokk lu njort ne bëgg nañ Cheikh te yéen tamit bëgg bàyyi moo leen fi indi. maa ngi leen wax ne ku leen ko xew ko ndax ni ngeen di fii ñu nit war nañoo déplacé bi leen fekk ku ne def ko bàyyi ni mu bëggee Cheikh Ibrahima Niass waaye léegi léegi dinañ la def loo xamante ne wax mooy maa ngi leen di ñaan si kàkkaay dama di ñaan ngir yàlla maa ngi leen di bii. xam leen seen bopp mosuñoo gis maam dem ci wala ni ko xatati baba njaay man baba njaay ñoom nit yàlla dama leen gis naa ya. leen waxtaan naa ñoom si kar leen sama kanam ñaanal leen maa ibra faal moom li ma ñaanal kenn xam mu ko kenn xam mu ko Baye Malé waxatul ko Baye Malé te te ñu ñëpp ma leen def rek at te ñu leen bëgg xam nga ko xam yaa maa ngi ko bis bi ma bàyyi bi ñu Nazir waxee ne da ñu koy laaj wàll kan mo tuddee bàyyi bàyyi mu dir nañu du ma ko tontu te ki ko tuddee ngi si dem leen dem leen ci maa ñun ñëpp ñu dajaloo juróomi nit lañ woon sama xarit yooyu ñu dem ci bàyyi maa leen toog ci suufam fekk mu sol drap bu bula naat bu oyof jiital siret maa bu oyof toog ci client ñu wax ko ne sëriñ bee ñu yónni daf ñu waxoon ne ñëw laaj la ah, yow yaa tuddee bàyyi lu tax ndax yokku nañ yow laaj la ah yow yaa tuddee baay lu tax baay mu am li mu def nii ba tàkku saa waxu la buñ ci deux heures dañoo ne woon añi jógul jógul añi ba tàkku saa noonu bi mu ne def nii topp ñu wëlee ñu yemee ñu noonu seen diiru dund xooleen doomi baabal xoolal doomi bàyyi sax laay wax ku leen ëpp relation dañuy jàng keer ku ne xam nañ doomi sëriñ sépp lañ xam mais mosoo leen dégg seen tànk muy jàllale def ko nekk mais dina bàyyi toog fu joxe seen dal taalibe bàyyi ma jox waaye ñun dañ lay delloo loolu père man damay wax sama gis-gis rek xarit toog ko bëri gisu nit yëpp dañ lay rékki rek laa tas xaat man lay sa lahum wa alwa bu cheikh benn wala yàlla ko waxoon wa tu'ayyiqul muraadu bàyyi moo ko ci dolli bu leen fréquenté koo xamante ne bëggul sa sëriñ wala taalibe boo xam ne xolam ajuwul ci sëriñ bi bàyyi ne taqul muriidu da lay dog muraadu dafay jébbaloo daf lay jàdduloo sa sa sa maanaam sa objectif la taxoon a jóg da te lii yëpp ba ko bàyyi di wax ñun ñu topp ko ñu ñàkk koo topp la ba Cheikh Tidiane di wax ñu topp ko ñu ñàkk waaye dafa xam ne suñu njëriñ la nekk ci moom dimbali ñu pour ñu jëriñ ci moom yàlla yàlla ràndal yàlla yàlla yàlla yi lii ñu doon waxtaan tey ñu ngi bëggoon waxtaan ci katmiya waaye wallaahi kenn ku nekk bëgg na ci nekk ñu xamal ko ku Cheikh Tidiane bu Cheikh Tidiane dañu bëggoon waxtaan ci CVM ci baaxiram te nag Baye mooy ñu ko digal Baye moo ne nañu bëri lu ñuy waxtaanee Cheikh Tidiane rawatina ci koor waaye nañu bëri sunu xaatir ñu ciy ñu ciy ñu ciy xalaat Cheikh Tidiane lu ëpp ci sunuy wax loolu Baye mu digal kon bu ñu toogee tey a waxtaan Cheikh Tidiane laa war ñoo yéem war na yéem kenn nag laa moo ñu daje ci bis bi nañu dëgër ci Cheikh Ibrahima Niass nañu dëgër ci Cheikh Ibrahima Niass taalibe ñu koy wax ci kudut Baye pièce xaw ma ma wax man de dem naa télé xaw ma rajo maa ngi àndal sama benn waay fekk damaa toog rek Medina ñu oo ma ne ma euh, euh, barab sàngam waxtaan ñu ne mu ne diw mooy dem nangam diw mooy dem nangam ma dem toog yi woon ne pièce dafa am damaa ñëw toog ba sama heure di waaje nag ñu def entretien mag journaliste bi keneen te animateur bi mu ne ah Cheikh dama bëggoon daal ñu waxtaan ci mag ñi benn temps bu njëkk balaa ñoo dugg Cheikh Ibrahima su ma ko booy laa xamul ma mag ñi dara. waaye lii tànn waaye sëñ bi waaye ma booy laa. man ko mag ñi naan la ma ne waa ñu waxtaan tuuti ci Serigne Touba ne man ko déedéet man xamul ma ko man boo dama koy dégg nii rek man waaw xaw waa ji daa reetaan ba jaaxaat ba tey waaye sëriñ bi moo neex ba rek bañ ma oowee mi dina bàyyi damay wax ci bàyyi laa ko waane du ma yóbbu ñu may wax ci ko ma xamul may wax ci man xam nga ma leen dara ni ma leen di déggee laa leen déggee du ma wax ci ñoom ki ma xamal dara ma xam ma dara ci moom laa mën a wax am na yoo xam ne ci complexe lañ lay dugal wax loo la loo xamante ne bi nga ko gëmoo ko te di taalibe dinañ la jéppi te bàyyi sax dina la jéppi parce que yaa ngi wax loo gëmul benn te yow ki ngay wax xam ne ne gëmoo sëriñ ñoom boo ko gëmoon dem bàyyi yeneen toppi ko kon yow foo taxaw nañ toog ci àll xabaar bi waxtaan ci bàyyi du jeex waxtaan ci Cheikh Tidiane di jeex waxtaan ci yoonu Cheikh Mouhamed du jeex loolu yëpp pièce la si karkat bu dem bu yàggee dinañ la sëriñ kaa ñu musique loolu ci mélodie doole jox état maa ngi leen di wax ne doo leen artiste doo leen wéykat te seen teraanga ci alaaji Ibrahima bu leen dolli violon bu leen dolli guitare bu leen dolli xalaat bàyyi fekk na ko fi te defu ko ko def te ku ko ci def nag ñu lay wax ca yoon maa ngi ku ko ci def di nga denc xolu taalibe yi billahi man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rabbun dañ la koy delloo te sikarkat yi nag duñ ay woykat wax naa fi keroog ca àjjuma ne naan as-su'ara yatba'uhumul gharawun alquran nee na woykat yi ñu topp ñu ci dëkk beneen di fréquent sikarkat bu bëgg nag ñu jaawale laak Youssou Ndour ak keneen ku gën ci violon ay lu kenn xam am naa sax benn xarit foog ma dog papa as si boppam bala ma génn aduna dëggum sikka te sikka sikka ya, yo xamantene papa as na ko garanté non la sikka sikka ron fula ne ya. c'est le ba garantie waaye gis nga fi la ñew géej waaye ñu dem ba affaire bi neex dañu wol ci gitaar bés bi mu njëkkee dem ci ramee nan jeng jeng jeng borom allah darbu boo biir ramee kooku bu balaasam yaakaar naa boobu la fay ci sikkar ba tey li may wax ne nag maag yéen a ko am na taalibe baay yu bëri yoo xamante ne taalibe baay yi sikkar di ci boole lu ci bokkul neexu leen man nag danaa ko parce que man porté naa man nit ñi saaga ma naa man neexu ma nit ñi bu ma neexee neexu ma kenn essentiel bi man neex naa sax man baabal nga nii sama sëriñ neex naa ko neex naa ko neexul nit ñi ñi jël vélo jël guitare di ko def lii may wax nii nag taalibe Baay ba koy mënatul man dama koy wax parce que man soxla mu ko mu gëm soxla mu ko réew jërëjëf man mi dina bàyyi yàlla laa yow te Medina laa taxaw ne la man man xaaruma képp ku dëkk ma nii ngay waxee ma c'est la moo yi may laajte mooy lu ma leerul ci bay si baay ma oo kilifa laaj ko mu te lu ma leerul ku ma dajal mu xadam bàyyi sax da ngay dégg ku ci wax daal leeru ba ba ñëw ba sa kër say kanam bu taalibe bi waa ah, sëñ bi damaa dégg dara leeral ma ko mu leer na mais lan war na suñu biir yow de bu yeboon nag nga yëkkati sa mbagg na Cheikh Aziz ñëwoon si man di leer wax ba tey loolu la dem laa bañ a dund rek si bàyyi kon man amul kenn ku may woo man Medina Baye dama koy wax naa ko Medina naa kenn ku ma woo ma ni ngay waxee Dakar mayuma ko kenn kenn ku nekk Dakar rek ku may wax tamit ni ngay bëggee Medina Baye ni ngay leen respecté 15 ans moo tax nag xaal boobu laay dund moo tax taalibe bàyyi boo xamante ne mënumaa ànd bàyyi mos a bàyyi wéru bàyyi boo raxmal doo neex a tontu kooku moom lu leer te yëkkati naa sama loxo ko soppi ne wax ne ma assurance bi mos ma su fekkee ne leerul la leeral la. waaye choisir wu ma nag pour nga gërëm ko déedéet li yokk ci man la nag moo tax lii may wax nii ñun ñëpp nañ sàkk baa ngeen boo leen defee li leen war ci man man danaa def li ma war ci yéen ñu ne ko bàyyi lan mooy ma defar seen àdduna bu ñëpp gis ànd ak àllaaxira islaahan taaman yuzhiru li kulli naadirin loolu la may wax defar bu mat sëkk boo xamante ne ku am bët dina xool xam ne sama taalibe bi defar naa ko addunaam ak allah xam bàyyi ko nee na ci kaw nag ngeen def li leen war ci man li ñu war ci bàyyi mooy lan ak sidqu wal mahabba kese ak dëgg doyloo bàyyi yem ci bàyyi bàyyi kottu kese bàyyi onni bàyyi bàyyi yes te nag képp kuy wax ci keneen képp kuy wax taalibe bàyyi buy wax ci beneen sëriñ dara billahi naa fekk nga because your team of you go team of you play by the team. Never by Yes. Yes. Yes. Yes. Cheikh Atta bi mu ngi nii toog di surtout Cheikh Ibrahima Niass dégg bi doomu papa yaayam bi doomu papa Atta bi mu ngi nii toog ñu tuddee ko Cheikh Atta bu Niass mu ne suñu biir yaakaar naa xam ngeen suñu biir la nekk di ñu dimbali di ñu assisté te wér na ma ne képp ku aju ci Alaaji Ibrahima ku mu juux rek bàyyi ko ci ndax jéegoy alaaji Ibrahima Seck المخالق بأن سفري ما ما فيه حزن من أزوز المسلمين ak Pape Ndiaye mi nga xamante ne ku xam baaba xam na ko ku gis baaba moom ci wetam di dégg nga ko jege ne suñu biir dégg nga ay yitteem tey ñëw fi jëfandiku Cheikh Ibrahima Niass rek laa gëm ne ku ma fekk loolu nga yaakaar ci te loolu te la yëkkati ñëw tey leen doon présenté wax ne kenn laa ci jox kalima mu joxe kàddoom suñu paree Cheikh Atou ñaan wala ma jox Bassou Ndiaye wala sama gars yi ànd teg ko jawriñ nga ñëw ko kalima nga wuutu leen yéen ñii sama gars yi wala yéen ma jox leen kenn kalima ah kan laa jox ci yéen buñ jox euh, ana ah? ah faw kenn jël seen parce que bi loolu wax mu ne ma na leen jox teraanga bi yéen ngeen gaa yi xiiral nag ñu daje mi dina baax zo bay parce que li nga fi wax ñu ci dara doole dara sax dama ragal ñu envoyé camion militaire

vingt heures ba quatre heures du matin ndax laan nga tudd yàlla ba nga nekkee sa kër bàyyi ña ma koo bàyyi daaw ko def la nga daan def mooy déglu Wally Seck maa ngi déglu Pape Diouf maa ngi déglu Youssou Ndour maa ngi nekk feneen ak feneen feneen tarbiya nii la nii mais léegi di tarbiya bi nii nii laay rombee sama mbokk yi fii lañ nekk fii mais dañ bu ma gisee ci biir sama débat da koy dem ko yaay nag bëgg naa ne ñëw na fii ba fii romb la mu ne ko kooku ne ku dee ay mbokk ñun sax ñu ngi suul buñ kër ga li ko suul man faa baax ba tey ndax ñii ñooy samay mbokk man ñii laa baax ñii laa baax parce que li mu Cheikh Ibrahima la man ñoo ko moo tax bu ñuy wax ci Cheikh Ibrahima sama xol mooy sedd bi mu mën a wax te yow daal ko mën di jox waaw saa su ñëwee nga jox ko comme seen dem su ma jigéen damay damay damay dem ba fi feneen laay moo tax bés war ko ñëw yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm sa mbooloo yàlla yàlla def sa mbooloo yoo xam ne dootu ragal loolu la lay tiim bàyyi bàyyi mën na ko bàyyi mën na ko rek bàyyi mu def la yow xam nga noonu ba ngay dugg fii Gounass tey jii bu la doon Cheikh Aziz tey jii lii fii di ko yëg di ko gëm parce que xam nga ki nga àndal mais ku xamuloon mënut a comprendre moo tax ñu naan ay bassin yu du fees ñoom dañoo comprendre parce que bassin yi sax Cheikh Tidiane kon tey jii yow Cheikh Thiago waroon woote te Basan gi Cheikh Thiago ngay def moo koy lam moo ciy toog moo toog ci moom woote loo lu dul borom Basan woote loo lu dul Basan kon Basan day fes boppam te foofu nag ci la koy mooy mooy El Hadj Ibrahima ñun ñii yoon bi ñëpp bu ñu woon bàyyi bu ñu ko wax ndax amuñu fi la xamuñu ko ne ko xamul mais boo ko xamee da koy am fit ko mu ragalul bàq bàyyi yàlla yàlla sàmm. jërëjëf. waaw so. waaye waaye moom bu ñu paree rek dañuy jot jotaay bi jeex nekk ni koor kenn xëddul dañuy terminé jotaay bi rek suñ paree yaakaar naa commission scientifique maa ngi leen di wax rek lu am solo Médina ren dañu bëgg a dañu bëgg a changé xadar bi yéen laay wax dañu bëgg a changé totalement ni ñuy defee kaw mënoo fee yóbbu lu ëpp junne nit ba pare taxawal bi ne foog ngeen toog daal di bàyyi dañu war a am culture yu toog déglu xam foog ñu toog sikkat waxtaan mu jëriñ ñi bees jëriñ dégg ñi ñëw pour yëngu ci parce que mu ñoo dem ni ñu toll ci man leen di ñaan nañ doon def takku saa te boobu dañ ko doon def wax naa ko indi keroog fan yii dinaa am lu ma àndal météo kon bi yëpp dañ koy def baax ñu jël suñu temps ñi war jël kalima yëpp ñu jël ku ne mu wax amul temps amul guddee fa lañ nekk deux jours amul yàkkante amul guddee yéen gis ngeen ne bu ñëwee Medina Baay hmm. soxla ma sax nekk ma fa vingt quatre heures yëpp ci mbedd mi laaj parce que màkk la foo toog yow nekkal ci atmosphère man doo leen ma gis ma dugg nekk sangu sax du ma sama yére yi sax pour ma sol ko difficilement laa ko sol. bàyyi nee na Medina boo fa duggee mu ne ku la joggi baal ko koo joggi baal baal ku la ñaan jox. mu ne lépp lu yàlla may ci man dana am jëmm bi tasaaroo ci biir mooy pour la xoolee ko gis nga ngeen di am atmosphère bu ah ah may man la ko nekk yaa atmosphère faut nit ñi bàyyi toujours ma cëpp nga dina bàyyi xam leen atmosphère bi ngeen ñëw barabu xóot ko yi ba jógee atmosphère boobu dafa yéeg maa sa waral abtaar ak jaari moo tax bàyyi leen kenn ci dugg gi ñu dugg bi dina waaw dugg gi ñu fay dugg nañ ko bàyyi ku gis nga temps bu ndaw moo laa yegg seen seen commencé rek ngeen gis dëkk clair xaar leen ma may leen tuuti rek waaw toujours tuuti rek ngeen gis te yàlla bu ubbee ñëpp naan moo laa ngeen ngeen gis dëkk bi set ngeen teg bët nuuru kallaa bi allazi malaaka bi yes waaw jëm yi leer kàttan yi leer a dajaloo nag jëm nag ci keppaaram sëriñ si loolu gën a moo waajal leen waajal leen waajal dem ñu amul jaay leen ci portable dañuy dem dañuy dem cër jigéen ñi nee naa ko am sax na ut far réglé ko ba mu baax jar réglé leen donc li si des nag maa koy garanti li si war a am maa koy ñàkk a dem wóorul nañu dem te wax naa leen nañ préparé bés bi nañu defar foofu ba mu mel ni war a mel woon gi nañ ko jël. jëm yi na rafet xam-xam bi na leer beneen dégg ngeen ni may waxee beneen chance lañ ko ko demee waaw te maa leen wax sëriñ bi le 10 octobre képp koo leen xam na seen ko leen di seetaan gàmmu gi dina ko def mais ci jour gàmmu gi dinañ ziar sëriñ bi danañ sikkaar sikkaar rek ba moom koo leen xam ne loolu maa leen dégg sikkaar rek bëggoon naa leen bàyyi ca xel le 10 octobre bii di ñëw sama borom may dégg te bu reppee ma dolli ko beneen keroog nag dama ko bëggoon dolli mu nii doy na ma doy na sëkk ma ko am naa beneen mu ne doy na sëkk waaw alhamdulilah bàyyi moo neex ñu bëggante boo leen demee ba xat xat xat xat imaginer ngeen dem toog ak mbokk tarbiya ñibbi seen kër xool leen yow bi doon def ak loolu mooy fii jannatul xuldi bi amul kenn ku toog Aliou Falaye Ibrahima sax xool tuuti ci yëpp stress stress du dara lu dul ay question yu bëri yoo amul réponse rek loolu mooy stress kon bëri yoo leen leen di jàng si waat dégg nga ñu jox suñu suñu xol bi Alaaji loolu nag xadra bi laa koy wax na ngeen préparé seen waxtaan yi ku bëgg a wax ci Cheikh Yane yéen incha allah ku nekk liggéey préparé ko yéen commission scientifique dégg nga mbedd ba. jotaay ba ba ci jigéen ñi am na bëri lu ma leen wax sa atmosphère dañ koy sàmm carrément carrément loolu bàyyi leen ci xel te nañ ci tàmbalee organiser li ma la wax dégg ngeen ko ngeen préparé. Mm-hmm. bi tamit ñu préparé formation. dégg nga mu wax ci carrément gaaw bi suñu paree ba am njaay après ma damaa feebar dama doon gars yi waxtaan leer damay jënd toog bi ma génnee gis ne fa ngeen ma xam ne fa génne rek leen jëfee loolu moo dégagé ni leen ci ma waaw loolu moo leen bàyyi tey ci ci ci ci sëriñ bu ko baaxee ah na ko wax sa allah dinaa ko wax sa waay waaw waaw waaw zoo moom waaw nga aw zoo bàyyi moom na bari na tey tey carnet bi bari na fuñ koy sarete waaw tey néew na fuñ fuñ fuñ ni wala ko dem ni ko dem tey amana bari na bari na tey ay ay ñu rek dem ci yeen bari ko wala fen tan ko won dem waye dara na moy moy moy indi tey ma ko ñoo xef ya ali sallallahu alayhi wasallam dara di mo dey ba ko seen euh di sa ko mo ne wala ñu

ndax bu fekkee ba nga koy Cheikh Dia mi wax naan sanaa alul basita wal awliya wa asiya waaw yoo xam ne maa ngi sax wala garab ñoom ci mën lay sax tamit dañu tey ji suuf tàllal moom moo nekk ci adduna fépp lépp lu mu si lañ ko teg kon Cheikh Dia na ko na ko fan donc dañoo xam rek benn itam nañuy xam bu baax sa sa yitte gisee ni sa yitte jaanee na sa yitte yu bëri yoo xamante euh, ni ñu ci ñu ngi ciy jàng ba am lu bëri loo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo suñu yaatu ñu ngi koy jëfandikoo suñu def ndax damay dégg bàyyi yoo xam ma ko bëri la waxal as mu ne doomu aadama romb na asu yàlla donc bu ñëwee ngay wax woo woo si yitte donc dañuy sant yàlla bu li ñu mën a wax daanaka xaw ma bëri na gars yi dañoo baax rek ñu waaye nekkul maa maa maa a wax nekkul itam ni moom maa xam wala nga ne ñoo war a foofu dañoo ma rek parce que fii nii tey par exemple buñ salaam daanaka dootoo ko waxati parce que bés la boo ko waxee li mu nëbb yëpp daanaka ñu sant yàlla baax di di di di la gërëm di ñaar yàlla mbooloo bi yëpp ndax bari na tey jii ci ci jamono mbooloo yoo xamante parce que bari na fi tey jamono mbooloo boo ñu ko waxee sànq rek xamaa dem rek naaw xamaa dem ko dox nii rek parce que affaire yi baaxagul da ngay baaxee rek ñu ne suñu mbooloo ba nga xam ne yow sëñ bi xam nga ne ñii yële fi wala wala donc bés bu affaire leeral nga xam ne ñii ñii yële fi wala wala dana gis ne ñii dana seen yoon donc donc sant yàlla bu fekkee ne am na mbooloo mooy am xam lan mooy ñii def ñu bëri dem nañ am na ku bëri jaay seen yoon dem nañu boole wala wala toog yow loolu mooy sama xool donc ñu koy sant yàlla bu baax baax ñaanal ñu mu xaral yàlla taal yi am na am ñoom ngir yàlla année sax seen lool lépp lépp di bàyyi bàyyi boo xam ne bàyyi li mu bëggoon sa yàlla yëpp am na parce que yàlla moo ko wax moom ñu bàyyi lépp bëggoon ci man am na ñu bëggoon ci bàyyi am naa ko ñu soxla ci yàlla yëpp mën naa ko donc ñu tey ñu ngi koy ñaanal bu baax xam nañ ne am nga ko li nga soxla ci bàyyi baax lépp donc ñu ngi lay yàlla yàlla comme buntu doole bu nekk yu jamono bu nekk rek bàyyi nga ne doomu aadama bu añee tey sax ak lu mu neex neex su mu soxla benn añ donc ñu ngi Amin. Amin. Amin. Amin. mais bi daal di am xaalis loolu yëpp rek am xaalis ak yeneen chef kon kon Pape Ndiaye mu joxe kalima ne Fatou may koy koorde yaatal bi xëdd bi yooyu te dama leen di wax ne lu verre bu garaaw mooy Samba Seck mais gàmmu gi ren mu sol jeseer bu ñu toog dox a gaa yi dañ baax nee na daraa yu mu ne te mbaxana yi tamit nee na bu kenn saa jaxase couleur waaw moom moom indi na fi sart bu métti la xam nga daf ko réglé ba pare bu ko bu ko burle gaa yi amul maa jaay mbaxana ah maa jaay mbaxana waaw yaa ngi mbaxana baal ki nag sàmm sett nag sant boobu la indi ren nee na gars yi naaj la wax medina baay naaj kon nag yóbbu ngeen ku allah Yàlla na ko yàlla gën a dëgëral bëri bëri li ñuy wax sax di jotaay waaye Cheikh Aziz suñu soppee la parce que suñu sëriñ Baba Lam Niass daf koo bëgg te yàlla rek tax mu bëgg Baba te yàlla rek tax میرے برکر بٹلا سر پورت guddal fanam lool lool lool ma jox suñu gannaaw ci mairie bi te ay doomam yëpp mu dénk ma leen ci xadra ñëw ci mairie bi bëgg Cheikh Ibrahima ba ñëpp ma yow xam nga taalibe baay bu ne ci mairie bi ñëpp naan taalibe baay kon mbëggeelam na indi ci mairie bi ba ñëpp naan taalibe Baay fàtte nañ sax fonction ndax état ko indi ci mairie bi affecté ko ci mairie bi duggee moom ci politique dégg nga kon buñ ko xàmmee baale si parce que mbëggeelam la indi ba jokkuñu tey ba njabootam ñëpp ñu doon dékkee ko xadara bi seen lépp tamit mu ne leen na doon fii te bàyyi leen ci lépp lu ñu soxla tamit ay cheytaan te bu dee toog mën naa ko jox kalima dégg nga ñoo ah. présenté waaw ni ma koy présenté daal mooy bëgg baay. bëgg Cheikh Ibrahima Niass laa koy présenté. dégg nga di ko ñaanal. li nga bëgg sa njaboot yi. ñu raw la ci baay. ñu raw la ci baay te ay jàmbaar la ay jigéen lañ. am na yar te waxtu wu ñu ut xam-xam ñu ngi teew kon ñu ngi lay ñaanal. dégg nga li nga bëgg ci Cheikh Ibrahima Niass li nga am ak li nga amul yëpp yàlla na fay ci maa ngi kontaan ci mbokk taal bi fi toog yëpp nag balaa ñoo ñëw seen bi di wax ne képp ku fi bëgg jëkkër yàlla na ko yàlla may képp ku fi bëgg jabar tamit yàlla na ko yàlla yombalal ñii sëy yàlla na yàlla barkeel seen sëy jubale leen tamit góor ñi bëgg tamit jabar jabar jabar yàlla na yàlla yombalal yokk jëkkër yàlla jox leen ko ñi ko am yàlla barkeel leen yàlla yóbbalal ñu gàmmu gi ñuy ñëw lépp lu ci aju rek yàlla di leen wax nag ne le huit incha allah ginnaaw bassin maa ngi wax saa yéen yëpp bu ko dégg ñeent yéen lañ yoo xam ne li soxla bis boobu mooy dëgg dëggu sikar sikar lu yàgg lañ soxla te bu ko leen kenn ku ci nekk téemi produit sikar ba ba yëpp sikar ndax loolu muñ mu dox te lii dundal alhamdulilah war ci suuf bés boobu daal sikar lañ soxla sante ko yàlla sante ko yàlla lay bàyyi doon wax naan lam yanaalu maa ara waaw ndax am na fu ñu tàmbalee am fu ñu yem li ñuy sant yàlla mooy toogaat fana di sikkar te barab boobu ñuy sikkaree du hasard ma leen bi ci liy secret mooy tukulóor yu mag yi nga xamante ne ñoo njëkk a doon taalibe Baay te génne woon leen foofu foofu moo leen seen néeg bu ndaw boobu fa la Abdoulaye Sakho mu mag mi nga xam mooy taalibe muy sëriñu Cheikh Abdoulaye Dia Cheikh Mahi Cissé nee na ma yaayam maama nettali na ko tarbiya ak xaal bi mu amoon Cheikh Mahi moom ko nettali benn bés di ma nettali tarbiyaam ak ni mu jeexee woon presque dafa demee woon sax dafa dof mu ne maamam moo ko ko nettali ci xaal yu njëkk yooyu mu dem Medina dem Fuuta woote lu yàgg mbir bi dëgër bés bàyyi ne ko sa turandoo bu ñëwee li ko tas turandoo boobu mooy Thierno Abdoulaye Thiam ruq ci boppam ruq bi ak ba ci papay Kabir bii Sikar nii ñi njëkk ñooñu jóge Fuuta njëkk a doon taalibe Baay mën naa ne yàlla gunaas gii la leen indi woon te boobu jamono boobu bàyyi ngi dund mu ne mu dem seeti Cheikh Ibrahima moo tax ñii ñëpp nekk ci mbooloo mi du ci mën a gis sama bopp bu pencam yàlla xalaatuma ko sax nee na ñoom ci néeg boobu boo leen ñëwee ci sikkar bi sax dinaa leen woon néeg néeg bu ndaw boobu nga xamante presque motul 3 mètres carrés ñoom ñëpp nee nañ fa lañ doon daje fa lañ doon sikkare fa lañ doon defee mu zaakaar ponkal yooyu ngay dégg yàlla daal leen indi gunaas boobu gunaas yi gunde xew nee ñu dégg ne bàyyi ñëw na ñu seeti ko jëppal baa bi moo ñu ko nekk mu ne mu wax bàyyi seen métit ba wax ne ñoom ñu ngi Dakar léegi wut lu ñu am fii Dakar ba ci yàgg ne bàyyi man ca àll ba am naa kër boobu gunaas fii am naa kër foofu bàyyi na ko bàyyi na ko dëkkuwaay soriwul fenn du àll fenn du àll mu ne ah wéet dañ fa ne bàyyi na ko xale yi dinañ la wéttali si kon xale yi dinañ la maîtrise comme ñun ñii waaw moo tax paa bi quatre-vingt et quelques années am na ko bi muy génn àdduna bu ñu gisee rek wala yéen ay ñaar mu ne parce que bàyyi yéen la ma waxoon bu ñu gisee rek day jooy naan ah yéen la ma bàyyi waxoon xale yi ñëw nañ xale yi ñëw nañ xale yi ñëw moo tax fu ñu mës a lal di sikkar paa bi moom suñu biir moo tax ñun duñ ko fàtte mukk ak paa war ñi tam duñu leen fàtte mukk ak paa di moom ñi dem ci ginnaaw nga ay mag lañ ñun tey ñoo ñu doon jàppale fii bi ñu ñëpp wane ginnaaw ñoom ñoo doon jàppale ba pare kenn ku ci nekk amoon na quatre-vingt et quelques at ñooñu nag mënuñoo def loo xamante ne mënu leen fàttali suñu jotaay moo tax foofu lañ ci buntu kii bi foofu fa la ñuy defee siddaal incha allah kon ñoom la bàyyi diggoon ne topp leen xale yi dinañ leen wétali ci ñu toog depuis jamono boobu ba deux ah 2003 2004 koñ bi commencé am taalibe Baay kon Baay moo diggoon wala Baay moo gisoon yii nii gunaas kon Baay mi leen fi indi yàlla na leen Baay mi tax ñuy daje yàlla ñu dëkk di jëriñ képp koo xamante ne jóg na tey ci guddeem gii yal na yéen moo leen jafe-jafe. amiin yaa remplacé ko ay leer. ak ubbeeku boo xamante ne dootu tëj ba peccam yaa. lépp loo leen na tàmbali di di yomb bés di ko tey. képp fi am jafe-jafe wala wala laxaar yal na ko sotti. kat tey jii nga xamante dégg nga maqaama Cheikh Tidiane hmm. nga xamante ne moom mooy jëmmi kat mais di jëmmi xat mais ñun tey ñu koy feete ci ndigal Mawlana Cheikh Ibrahima lépp lu nit di witt ci bés bii yàlla na ko bàyyi witt teg ko suñu loxo ci lu ñu xam ak ci lu ñu xam ndax Cheikh Tidiane wax na ne bu lan mooy li ci bés bii danañ ko jàpp feet te koy feete ak wute li ci wàcc ci ay may ak ku ko feete lim leen di jëriñ baaba la ñu def ma wax benn jour jóge gàmmu Nigéria ma seeti ko damaa ñëw toog rek di ko wax rek ah sëriñ seetaan nañ gàmmu bi mu ne mu ne ku tegul foofu tànk doo xam la fa ne mu ne caméra sax mu ne laa won la fa ne mu ne tekk ñuy ñuy waxtaan ba ci kanam mu ne gis nga Nigérien yi ñoom xam nga lan la ñuy ñëw soxlawuñ discours soxlawuñ dara mooy ñu ñëw rek seedeloo yàlla ne bi ñuy màggal Cheikh Ibrahima la fekke na mu ne nit fu mu taxaw baax nañu yëg ne rek ñoom bi ñuy feetal Cheikh Ibrahima ñoom fekke nañ taxaw nañ ci baax ñun tamit tey ñu ngi feetee juddu Cheikh euh, euh, maqaama Cheikh Tidiane bi nelawuñ ko alhamdulilah te loolu nag du muus yàlla ñu ko may yàlla na ko remplacer suñu soxla yi gën a kawe yàlla yàlla barkeel njaboot bi yàlla ku nekk loo bëgg rek bu ñuy jóg fii balaa ñoo jóg sëriñ bi di ñaan kenn ku nekk li bëgg na ko teewal ci xelam ak ci xolam xam ne yàlla dana ko def yàlla yóbbu ñu dem Touba yëpp yàlla na leen yàlla yóbbu ci jàmm ñoom ñëpp yàlla nañ ñibbi si waat ci jàmm lépp lu ñu yaakaar ci sëriñ Touba yàlla lépp lu ñu ci seen yoon woowu barab ba ñu dem yàlla nañ ko jot maa ngi koy ñaanal yéen ñi jëm na Baye nit mën naa dem fu muy jëriñoo def fa lu tax du fa jëlee ji dara mel fa comportement boo xamante ne doo fa jëlee dara yàlla na ci yàlla mosal ñëpp kon ndox seen bi mu ñaan ñu ñëpp ñu teewlu suñu xol kenn ku nekk mu ñaan dégg nga te maa ngi leen di wax ne yéen ñi ñëpp daa am soo leen bokk kenn ku ci nekk soo leen xewlee naa ko yëg ndax ñun bëgguñu nit ku ñuy fekk si te duñ la si fii kër gi kër El Hadj Ibrahima kër Cheikh Ibrahima ñun ñaawu njort ci kenn benn jour damaa toog benn jour benn waay ñëw fii war naa am ay cinquante quelque ah, war naa am ay soixante ans wala cinquante quelque mu ñëw ñu nuyoon te ba pare mu ne ah sëriñ bi ma ne damaa jógoon Medina Baye war a dellu Fuuta ñëw pour jël ci fi oto pour pour dem. ñu ne ma romb fi ñu ne ma ah muqaddam bàyyi moo fi def bëgg fi jaar noppale ko toog ko ci nga man ah toog ñu toog ñu ne bay waaji am na ko dugal ci biir duus mu jóg ma ne ko dugal sama duus mu inti ma ko ci ko bi ci biir mu sumeeku sangu kii changé yére mu yëkkati benn dara jox ko dara naa ñu añ ba pare dégg nga bi mu ñibbee am ko fi yenn woon ci kër gi ne sëriñ bi da ko kii yaa ko gis tay ah xamoo fu mu jógee mu ñëw nga dugal ko sa biir nit bi ci biir bàyyi ko ba ñaata mën a ko dégg bàyyi la ko dikkee rek te bàyyi ko lool mën a ko te bés bu bëggoon soppee ci biir bàyyi teegal donc moom lu ma leer moo tax nañu rafet njort ku am Cheikh Ibrahima Niass na rafet billaahi képp ku leen duggee ci bàyyi su bëggee soppale ko bàyyi la ci fekk buñ la rafet njort buñ bu ñaaw njort ci kenn boo ñaawee njort ci kon bàyyi dafa bëri mel nga ñàkk lu mu am bés te loolu la yebaloon ci mm-hmm. nañ la fa ndokk ci ñëpp nañ màggal ñëpp mm-hmm. nañ màggal taaliba baay yëpp képp koo gis mu aju si Alaaji Ibrahima Ñas téere màggal gaawal jëriñu ci moom maanul ci moom man la laa gis yàlla yàlla defal ko yow suñ paree nag maa ngi leen di wax ne ñëpp nañ waat le dix bi incha allah

ndax jotaay la seen xool des na ci yi ñun ñëpp bég cheikh bi waxtaan nañu ci lan mooy njëriñu bés yi ak lu tax ñu organisé bés yi buñ dajee fii nii liñ sant yàlla rek ci loolu di ñaanal yàlla bu baax yàlla gën koo dëgëral ndax boo ñëwee fii nii gunaas boo ñëwee fii ni rek képp kuy taalib baay te bëgg baay rek da am mbégte am kontante ndax bu mel nii nga dajale leen te waxoo leen lenn loolu dafa jafe ci jamono dafa jafe itamit ci ay xadar nga xam mu buñ rek njëkk wax mooy watal seen bopp yëkkati seen bopp ay maqaam te moom nekk ci loolu waxtu bu nekk rek heure bu dajalee nit ñi rek ci bàyyi la leen di ci Cheikh ci ñun tudd la leen di oo buñ ci bàyyi kenn du xam ne ni ñoom la yàq ci yàlla nga xam ne nii boo leen gisee rek loolu war war ngaa tax ba egsi ci ñoom boo leen dégloo rek ngay xam ne ñii bàyyi la kon nag seen waxtu ci na wax